asalaamaaleykum euh, sëñ bi tur ak euh, sant bi. maaleykum salaam wa kii de Fallou ñu ngi leen koy wax. yaa ngi ak euh, Sénégal tey Sénégal war na jongante ak Égypte muy benn final bu ñu war a joué muy Coupe d'Afrique match bi soxal sénégalais yëpp moo tax Sénégal tey ñëw ci marché Colobane seet si leen ngir ngeen wax si seen i xalaat noo gisee rencontre boobu entre Sénégal ak Égypte. waaw match bi moom ni ñu ko gisee moom leen la moom di ñaan Sénégal yàlla may ko tey ji xam ne bi jàll perdre ko tey moom ñi ngi ñaan suñ borom may ñu ndam loo xam ne si coupe bi Aliou ko mën a andi Sénégal gi ñu feetoo ko feetu rafet bu am solo. max bi da xanaa ñaan suñu borom mu may ñu ndam rek man daal loolu doo nga lay ñaan ndam waaw ndam daal lay ñaan yàlla mu may ñu ko rek noonu ko amee nag baax na mais nan Sénégal jël coupe rek incha allah waaw loolu daal a bëgg non damaa tiit man kay suñu toll nii moom grand milliard bu ñu ko tegoon Sénégal jël coupe bi ma ko gënal maa la xamal loolu xanaa bëgg coupe bi ñëw rek waaw doon Sénégalais bëgg coupe bi ñëw waaw a bi ah wax dëgg yàlla moom li ma ko gisee mooy xel dal na quoi parce que équipe bi li muy suyee kan bi yëpp kenn suyee wu ci wax dëgg yàlla li ma gis mais dam la yàlla ko yor mais yàlla na ko yàlla may ci kàttanu yàlla suñu borom loolu lay ñaan quoi ndax jot na. kii am Égypte ne xel dal na fan nga ko teg. ah ci kàll suyee laa ko teg ci kàll suyee parce que Sénégal suyee yu mu yor ak suyee Égypte yor bokkul Égypte booy xool benn suyee bu nekk Isar muy Salah mais Sénégal nga naan Sadio Mané na Koulibaly na Mendy. yaa ngi dégg Ismaïla Sarr xam loolu dafa dis foofu lañ ko teg a ñun. ah waaw ba ñu am confiance instant yii nii kay moom coupe bi rek la ñuy gis tey waaw tey kay moom dañuy indi coupe bi suñu ah, mais andi coupe bi du yomb de. ah mais am nañ am nañ joueurs yi am nañ potentiel bi donc dañuy gagné. Ah, am nga ci yaakaar. am naa ci yaakaar bu baax zéro doute. Ah, mais Égypte dafa taxaw de. waa mais ñoo ko mën. waaw foo teg ne ñun ñoo mën Égypte. non da ngay xool ci match yi ñu fubal rek. par rapport ak Égypte ñun fi ñu nu ñu fubalee nu ñu suñu dernier match yi par rapport ak Égypte. moo gën a metti yoon. waa Égypte moo gën a am waa Égypte moom moo gën a am parcours bu diis ndax ay ñoom ay Côte d'Ivoire ay ñoom kii mais ñoo leen mën ba tey. Égypte match yi ñu fubal yëpp da ko yóbbu 120 euh, minutes da ko yóbbu ah par rapport ak Sénégal Sénégal match yi ba mu demee ba demagul paro. waaw mais ku dem 120 minutes am qualité génn ci ah saa boo demee am victoire. loolu tamit est que jarul non loolu looy rek. coach bi moo ko war a liggéey loolu laa gis bi moo war a def loolu moo ci war a travail ak séeréer quoi. waaw man gëm ma ni Égypte war naa mën a gañ Sénégal jamono ji waaw man loolu laa jàpp. soo doon joxe muy doon. xanaa ñu door rek. 3 bariwul na bariwul mais 3-0 war naa mën a doon incha allah te day doon bu neexee yàlla waaw. Égypte du ñeexu ñebe. Égypte moom xam naa ne moom ñeexu ñebe ndax naare moom li seen problème bu ñu la xasee manee moom saa moom waaw pour nga dindi ko moom day lu jafe waaw la. mu daal moom baax na lool xam naa ne bii biir match moom am naa yaakaar ne moom bu ñu ciy footballee li war a football mën na leen a dóor moom waaw am naa yaakaar bu baax ndax li ñu am ci suyar yi ñu am moom baax na lool lool lool tey xam naa ne boo dee xool ñaari suyar dong laa xam ne si moom xaw nañ ci am solo lool lool waaye ñi si des ñëpp moom yaakaar na <laughs> mooy loolu waaw. yow tey boo doon ñaax gone Aliou Cissé loo leen di wax. ah leen daal laa leen di wax ñun amaguñu coupe Égypte am na sept coupe Égypte huitième bi la jël si ñun suñu premier coupe lañ jël si. donc nañu nañ leen gën a bëgg coupe bi tey man loolu laa leen di conseiller quoi. waaye wala ñaar mooy ñu gën a jàpp rek waaw lu ñu defoon benn ñu dal ci fukk rek après gaafe di gën a dëgër ñu ànd ah, ñu booloo quoi dool benn après ndam lay ñëw de xam nga Sénégal bu ñu booloo ñoo mën ku ne comprendre nga noonu la demee quoi fan la ko teg di ñaan ndam rek yàlla may ñu ko incha allah. léegi score bi lu muy doon. score bi ah score bi yàlla xam mais bu soobee mu nekk 5-0 wala 3-0 ñun li li ñu bëgg quoi li ñu bëgg <laughs> noonu la demee waaw waaw. xanaa ñu yokk jom rek maanaam gën a yokk jom ji parce que loolu may indi ko fulla ak fayda waaw terrain boo fi nekkee war a def fulla ak fayda football li ngay football ñëw ko bi ñëw incha allah mais pas nekk ci biir terrain bi di passante indi loolu amul benn sens waaw li gën a am fulla fayda bi mooy nekk ci biir terrain bi def fulla ak fayda parce que defaan ñoom xamante nañ seen biir bu baax waaw. li leen wax daal mooy leen la moom premier mi-temps moom bu ñu ci am biin moom moo gën wala deuxième mi match moom bu ñu ci mënee bit daal moom moo gën moom biir match waaw. xam naa ne bi biir match moom am naa yaakaar ne moom bu ñu ciy footballee li ñu war a football mën nañ leen a dóor moom waaw am naa yaakaar bu baax ndax li ñu am ci suyeer yi am moom baax na lool lool lool tey surtout xam naa ne boo dee xool ñaari suyeer dong laa xam ne si moom xaw nañ ci am solo lool waaye ñi si des ñëpp moom yaakaar na mooy loolu waaw waaw. ñi leen di jaajëfal bu baax nag di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal seen bi jëm ca kanam incha allah rabbi waaw.